ngi tudd Amadou Bari maay papa xale beneen xale bi bon man bu affaire bi amee fii laa ko bàyyee ci suba bi ma xëy liggéey mu doon même pas trois heures daan ne owaate ma dafa am lu daan seen kaw mais jigéen ñi nee kenn dañuy nangul kenn dugg si biir ma ne ko ah xale yi gaañu nañu comme am accident ñu nangu ngeen dugg si biir xam naa ne gaañu na quoi foofu laa jëlee taxi ma ñëw. ma ñëw si euh, centre de santé bi nangu ñoon ma dugg sax parce que ba ñu ne kii mooy papa xale bi après ma ñu ubbil ma bunt bi ma dugg ma dem xool xale bi fekk gaañu na quoi parce que jural ma méttet bu métti billaahi yàlla xam na ne jour boobu dund ba parce que boobu jour moom musuma koo dund parce que am naa xale bu am naa ñaari xale yu ma jiitu mais boobu bi mu am jour boobu dama dama def yëfu jullit rek delloo ma xel yëpp si yàlla parce que yàlla moo ma ko abaloon ñaw jalaate ko tamit dangay sant yàlla da ngay santaat yàlla rek xam ne. masaw bu baax a baax ci euh, loolu ñu bëgg nga fàttali rek sa doom bi nga xamante ne moom moo génn àdduna ci incident am ñaata at la amoon. moom ay 4 ans la am ay xale bu ndaw la parce que ñu mu àndaloon yëpp ay ñoo ñoo ñoo ko màgg parce que ñoom ñooy àndaa moom parce que bu dee moom kese. Euh, du dem quoi parce que xale la mais yenn saa yi day àndaa xale di ñu foo xam naa ne parce que ñun suñu boy yëpp si terrain bi la ñuy entraîné di topp xale pour seetaan seetaan leen daal ci bu ñuy bu ñuy xam naa la si si affaire bi mbir bi si loolu la amee daal waaw. Euh, xale yi no kenn ki sama set la papaam doomu sama mag la. Euh, si kër gi yàlla ñu boole ñu ñëpp si kër gi man deku nekkuma woon fii saa ñoo ma jiit si kër gi waaye ma ñëw fekk waat leen fii xale yi ñu ngi doon dund fii waaye xam nga léegi jàng amatul woon xale bu xëyee bu ñu ndekkee dañuy génne di fooyi léegi xale yi kenn ku ne eh, laaj na papa lu muy jënd ndekki kenn ku ne papa yëkkati jokk loo jënd ndékk noon la xale yi yàlla def li yàlla di dogal ñetti xale yi yëpp ñu daal di jenne ànda dem ci téereem bi bu ñu demee ci téereem bi ñuy foofu foofu sey yaay xale yi ñu àndal woon ñene yi ñoo joge foofu ñëw nee leen diw de ak diw gaañ kenn ku ne ku nee la sa doomu dee na yaay yaay parce que kenn ki papa mu ngi fii daa joge marché ñaw Eh, di seetaane journal kii moom daa xëyoon dem moom tan di liggéey fa lañ ko wooyee téléphone kee kale yi ñëw fii wax ko sa doomu dee na ni mu daa summi bu bantedde bi mu jogee noonu la jëlee mbubb bi daw ba si téereem bi foo la solee mbubb bi ndax de de koo bett kenn foogu ko woon xam nga balaa nga yaakaar dee nit fekk dafa feebar waaye feebarul laaji la nekk mu génne dem di foofu yàgg mu ngi defe ne ñu ngi fii ci buntu kër gi rek dem nañu ba foofu ñaw rek ne dee na xam nga de defa loolu lu bett la noonu lañu leen jëlee foofu yóbbu leen si hôpital bi si terrain bi fii léegi man noonu nekkuma woon fii damaa demoon til leen fa ma woowee ñu ne ma ñëw poto yi daan na si kaw kale yi ñaar yëpp dee noonu laa déparé foofu ma jël taxi yi ñëw wàcce fii eh, dem teere dem teere fekk ñu ngi si biir eh, hôpital bi ñu dem foofu léegi ma fekkee papa yi ñu ngi jooy ma ne leen muñu leen lii la yàlla dogal yàlla noon na tey jii fekke yéen papa yi ñoo dem waaye kii la soxla fu ñii la soxla fu mu nekk nii moo tax mu yëbbale ndax bu muy bu mu leen koy jox laaju laajul tàgguwul kenn te koo neex mu jox leen kon bu ko neexee tam bu bugg a lay yóbbu dina lay yóbbu. waa ñun keroog ñu ñëwoon terrain ndax man su ma yeewoo balaa maa dem saal damay ñëw toog si jaaykatu kafe bi terrain watu jaaykatu yàpp bi foofu noonu foofu laay toog naan kafe ba pare doo dem entraînement saal mais keroog maa ngi toog foofu noonu gis booy yi di fa foo am na ñetti booy sax yi ma fa njëkk dàq am na ñetti booy yi fa doon njëkk foo man maa jug dàq leen ñëwaat toogaat xam nga. ba ma toogaatee mais dama wanoon euh, poto yi ginnaaw maa ngi toog woon poto yi mais après par la suite la booy yooyu noonu xam naa ñoo doon foofu mais damaa jékki-jékki rek dégg booy di yuuxoo booy yi doon entraîné noonu si terrain bi léegi ba ñuy yuuxoo ñoom ñaar ba ñuy yuuxoo ñu daw ñëw gis poto yi daanu il pare que nag benn booy moo nekkoon si kaw poto bi doon foo kenn ki ki ki xoosu ki ci am ku ci gaañuwul deful dara moom moo toogoon ci kaw a kaw doon foo léegi ñeneen ñi nekk si suuf yeneen booy su suuf lañ nekkoon oto yi ñu ko tegee baaxul ñoom dañoo ñëw xanaa poto sax boo ñëwee di ko teg sax dëgg la xaw ma nee nañu xaar yàlla la yi pour xaar yàlla la nii nee nañu pour Médina la mais boo ñëwee di teg poto pour exposer ko mais ràcc ko nga teg ko suuf nga bañ ko def benn hauteur boo xamante ni hauteur boo xamante ni day kawee te ñun suñu xale yi amuñu fenn fu dul terrain boo yëpp terrain la ñuy foowee ñun foofu lañ foowee ba màgg ba toll li ñu toll essai yaay dégg kon ñoom bu ñu demee ba nar a teg foofu noonu danger boobu noonu nañ ko teg teg bu normal mais mënoo ñëw teg ko tegu maa tey ku ci mun ta wax du ci am tontu bu ko neex il paraît que gars yi ba ñuy wax ak ñoom foofu lañ nekk naan ñu bu subaa bu ñu indee yeneen yi si seen terrain bu mag bi lañ koy teg. poto yooyu noonu ko fi indi. poto yooyu noonu ñun ñu ngi dégg ñu ne waa Sénélec ñoo ko moom ñoom ñoo ko fi teg ñoo ko exposé te dem maa ngi déglu journal dégg waa Sénélec ñu ne ñoom yóbbuñu ko dinañ ibbi enquête moom mu xaw a jaaxal quoi. yëg ne itam ay poto ñoo dal ci kaw xale yi ba mara di ñu ñàkk ci seen euh, bakkan euh, ci benn xibaar bi nga xamante ne jot nañ ko waa Senelec ñoom ñoo fi indi yi euh, bañ ko fi def itam askan wi waxoon nañ leen buñ ko fi def ndax loolu wér ak jamono ji tamit ndax yéen da ngeen fas yéene porte plainte waa Senelec ngir mën a ñu rendre leen justice. waa loolu moom xam nga poto yi buñ koy indee man jour boobu bu fekkee maa ngi wàcc ma fekk leen parce que xaw ma mbir bi sama kaw lay mujjee. parce que bu may wàcc damaa fekk ñi taxawaa xale yi di leen xale yi di kaase ne ne du leen fi teg parce que xam naa ne dañuy xaar ba xale yu dem si dugg rek ñu indaal affaire yi teg lool moom mun naa ko seede xale yi moom bëggu ñoon ñu teg affaire bi fii ñoo ko forcé teg parce que nuñ ko tegee tamit baaxul ñu njëkkoon gis yëpp xam na nuñ ko tegee baaxul voilà parce que man xaw ma ban société la moo ko teg naa dëgg fa yàlla xaw ma ban société la mais ñi fi teg moom euh, mun naa wax ne li ñuy def parce que te tom te même bu dul terrain sax foofu yoon la fu ñu ko teg yoon la mënoon na même boo dalee mënoon na dal si keneen li ñu def moom teguñu ko fenn waaye wallaay. ni euh, ñoom ñoo yóbbu bakkanu xale yi euh, ci li ñu jot a dégg comme xibaar waa Senelec ñoom ñoo ko fi indi woon te bañ ko indi askan wi yeewoo fi ñoom yegguñu ko. a ah, man de dégg naa bu ñu ko indee ni xale yi soo coowoon nañu mais duñ ko fi wàcc. waaye ñu forcé rek wàcce ko foofu man noon affaire wàcce bii xawma ci dara nu ñu ko wàccee ndax dañ leen jox ndigal wala joxwu leen ndigal waaw eh, man dama yëg rek poto yi daan na seen si si kaw kale yi boobu maa ngi tilleel ma ñëw jis poto yi foofu fekk kale yi da daje nañu foofu poto yi ni ñu ko tegale woon tas nañ ko pour xëy na mu bañ a daanaat si kaw keneen encore mu dee tas nañ ko bi ma bàyyee foofu ma daal di dugg si biir hôpital bi bi ma duggee si biir hôpital bi noonu laa nekkee ci biir hôpital bi boo ñu jenn euh, xale yi teg ko ci ambulance bi ñu jenn sa dem sa tewo waaw. ñu ne nag euh, tey jii nii euh, société bi comme wax nga sànq ne xamoo ñan la ndax jàpp ngeen ne tey jii war ngeen mën a porter plainte société bi ngir ñu mën leen a par rapport ak incident bi fi amoon. waa xam nga yoon moom man dëgg fa yàlla eh, yoon xaw ma si affaire yoon lu bari parce que dëgg fa yàlla man boo ma laajee parce que man julit la man sama doom moo ma ganal yi yëpp sama doom parce que dama jooy sama doom ni ma ko bàyyee même pas trois heures de sama dikkaate ma fekk sama doom nu muy teddee waaw xam nga loolu affaire yoon bi moom essay moom mun jàpp ma ci dara parce que bon xaw ma ci yoon man yoon moom man xam naa leen rek man damay delloo sama xel yëpp si yàlla loolu rek laa xam damay delloo sama xel yëpp si yàlla parce que yàlla moo ma ko abaloon jëlaat na ko mais man deux bi sa xamal moom dee moom nit moom nekk day gaayu waxuma la doomu aadama loo ji si àdduna day jeex comprendre nga mais nu ñuy dee bi moom métti si xale yi ni ñuy deewee moom métti parce que bon loolu ku ko gis waa ko ñi yëpp loo gis xale yi nu ñuy dee sa xel day ñaaw voilà ñoom tamit li ñuy def moom yàq na fi xawma woon sama doom lay daal mais ñun liñ li ñu tege woon affaire bi wóor na leen ne loolu moom ay mus ay musiba la quoi fii nii euh, yow ak sa njaboot yi nga xamante ne nii euh, tiis bi moom moo dal seen kaw ndax da ngeen euh, envisager porter plainte waa Senelec ngir mën a rétablir li nga xamante ne moom mooy justice. ah loolu waxtaane guñ ko waaw affaire loolu waxtaane guñ ko ndax si soxla lañ nekkoon ndax soxla bi soxla bu bett la te encore ñu jaaxale ndax dinañu jot xale yi wala duñu leen jot gaaw a jot. ci loolu la ñu nekkoon bu la yàlla def ñu jot ñu jot kale yi dem denc leen tay jii tey jii eh, toogu ñu ñu waxtaane dara ndax eh, chaque minute daanaka dafa am ku ñëw di jaal ñu ngi toog di xaar ñii di ñëw di jaali waxtaane gu ñu ci wàll fanu boobu. tamit dégg nañ ne ñëw na fi moom ba mu fi ñëwee fekk incident boobu lan la leen xamal. waaw bi maire bi ba léegi man dama jàpp ni moom. Euh, day ne nii rek mais ñoom la ci lépp lu ci biir ñoom xam nañ ko lépp lu nekk ci biir rek ñoom xam nañ ko démb rek la fi jógee démb la fi jóge dembu ci guddi ba ma ko laajee lenn la moo wax daf ma ne euh, poto yi pour waa xaar yàlla la ma ne ko non yow waroo waxee noonu ndax barki démb ci guddi barki démb bi affaire bi amee dañ la laajte nga ne poto yi nekkul pour waa xaar yàlla yaa génne sa gémmiñ wax ko ñëpp di déglu nga ne poto yi pour Médina la nga bëggaat taxawaat fii nii ne poteau yi pour waa xaar la poteau yi même bu nekkee waa pour waa xaar yàlla la mais yow lii sa commune la lépp lu fi war a mënta dugg wala lépp loo xamante ne dañ ko war a liggéey sa commune yow am nga si part de responsabilité te da waruñu mën a liggéey dara sa commune te yëgoo ko waaw ñun duñu ay dof xam nañu lépp lu ñu war a mun a liggéey commune mais bu dee état moo koy liggéey moom mooy joxe autorisation. ci bërëb ba ndax euh, poteau yooyu jëlee nañ ko fa wala. waaw ñun démb am na lu ñu nar nag mais boobu ba léegi suñuy kilifa ñu ngi ñuy defal ndax affaire bi métti na métti bi nga xamante ne euh, mënuñu toog sax di ko expliquer ndax ay xale yu ndaw ay l'âge quatre ans six ans ñu demee nii quoi ñu doon xam ne dañ doon pare seen ouverture de école xam nga métti na trop mais dañ koy sante yàlla rek mais ñun lu ñu mënta wax man awma kenn ku may wow lu dul Macky Sall la ñuy ñaan ci njëkk ak teraanga ñu ñëw jëleel ñu fi nii quoi xam nga nit bu nekkee da ngay liggéey da nga da nga war a engagé benn liggéey war nga am hangar bi nga xamante ne fa ngay exposé say say say matériel ak say bagage yinga nga xamante ne moom nga koy gox boobu nga war a liggéey mais waroo mun a ñëw seetaan sànni ko si ay terrain de football. ko fii teg yéen d'accord leen si woon déjà. musuñu si d'accord musuñu si d'accord ndax booy dañ taxaw fii waxu ñoom ne leen poteau yi doo leen ko fi wàcce terrain bu mag bi lañ ko bëggoon wàcce booy ne leen fii doo ko fi wàcce xam nga mais moment boobu noonu oto bee ngi taxaw oto bi demul ñu bëggoon dugg ci terrain mag fekk booy dañ doon football booy xatraay ñoom ne doo leen ko fi wàccee ñu jël oto bi ñëw gaare ko ci terrain bu ndaw bi ba booy tasee nag ba ñëpp dem ñibbi ci guddi gi lañ ko wàccee eh, wàccee yàqamti quoi noonu lañ def. yi mel ni euh, euh, ñett xale lañu woon ñu doon foo ci terrain bi ñaari ñàkk seen bakkan kenn ki euh, ñu liir ci xibaar na fa nekk daal le ndax loolu wér na wala. waaw ba léegi mi ngi ci dans le ñeent lañ sax duñ ñett ñeent lañu ndax kenn ki moom ki nekkoon ci kaw comme ki ma lay wax booy ñun ñëpp xam nañ leen fii la ñuy fii xam nga booy ba ñaari booy yi gaañu kër gii lañ dëkk kër gi ma toog ñu di yéen fii lañ dëkk kon xam nga ni kon booy xam nañ leen ñun bu ñu xëyee fii lañuy toog booy danger si danger bu ñu nekk ñun dañ leen di ne bàyyi leen est-ce que comprendre ñeent xale lañ du ñett kenn ki moo nekk dans le coma ñaar ñi ñoo ñaax seen bakkan mais kenn ki moom dara jotu ko quoi